asalaamaaleykum wa rahmatulah taxala wa barakaatu yéen mbokki julli ci mbokki taal bi ngi xamante ni yéenay seetaan seen télévision bii di kuréelu Seexul Xadim TV ak seen télévision bii di tubaa Argentine TV ñoo ngi leen nuy bu baax di leen ziar di am mbégte ki ne ci kàddu gi di seen mbokkum taal bi seen doom seen xarit Moustapha Mouhamed Fall di am mbégte loolu tey jii di leen ziar di jiitati nuyoo bi Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadou Bachir ibnu Seexul Xadim xalif général des Mourides di ko ñaanal Mbàkke mu yàgg fi loolu te ànd ak te ji yéen mbokk yi nga xam yéen ñuy seetaan fii ci Touba Brésil Touba Argentine TV ak euh, kuréel Cheikhoul TV ñoo ngi fii tey ci journée xasida Brésil 2018 ñu mu amee fii ci Rio de Janeiro ngeen gis ni mbokk taal bi ñu ngi nii àndandoo jóge ci bërëb bi nga xamante ni mooy point départ bi fu seen jëm salle bi nga xamante ni fa la ñu amele journée xasida 2018 fii ci Brésil Rio de Janeiro ba tax na tey jii ñoo ngi fii ak euh, sunu mbokk taal moo xamante ni sunu waajur la sunu kilifa la ñu gën ko xam ci Baye Chérif moom mooy jëriñu daari fii ci Rio de Janeiro Baye ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyoog mbokki téléspectateurs yi ñu lay seetaan euh, en fépp ci àdduna bi. asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziare di leen baalu àq di leen baalu àq di ñaan suñu borom boole ñu jéggal ah xam naa ni kàddu gu ñuy wax rek mooy Sëñ Tuubaa amati ndam te loolu def bokk ci nuyoo bi. ndaxte damaa yàgg wax ne Brésil gii ñu nekk ku fi mës taxaw ba ni ab murit benn rek dina fi am àddina sépp weddi ko Brésil vingt-sept état la état bu ne daayira Sëñ Tuubaa tey samp na fa bon nag loolu dafa bokk ci sama nuyoo ah di ñaan sunu borom yi ci bis bi mu jàpp lañ ci dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamina ah di sant nag waa Amérique latine bépp surtout à Brésil fu daayir nekkoon ñëw nga teewlu teewal sa poos teewal sa lépp bon nag loolu ñu ngi ci ziar ñëpp di ci sant ñëpp ah di ci màggal ñëpp di ñaan lépp lu fi ñaan ci màggaay yàlla ci barke Serigne Touba mu tax ñu koy def yàlla na ko yàlla nangu te damay wax rek ñun diine indi wuñ fi dañ koo jëlee réew mu indi ko fii koom moo ñu fi indi mhm. bu ñu toogee nag ba taxawal fi diine ba lii nga xam ne marche bi ñuy def tey der bu xonk ñemewu ko fee def Serigne Touba rek moo ko fi ñemee def waaw Serigne Touba rek moo ko fi ñemee def bu doon der bu xonk tey bu ñu naaree def nii tey ñoom ñëpp ñu ngi ci tey ci ay loxo boo ne bu ñu amee liberté bi ba koy dox muy fii ba Chine mhm. Serigne Touba tax ndax Serigne Touba ko jaayante woon mhm. boo nag maa ngi ziar waa média yi fi ñëw ñëpp mhm. ndaxte liggéey bii ngeen di liggéey dafa rafet ndax bu doon ñun rek taalibe yi tey ñu bu ko liggéey du sotti ndax lu ñu nekk ci ab mbedd wax ko it bu ñu génn day fay mhm. mais lu ñu génn ci mbedd mi bu média yi génne divulgué ko ci du bépp bon nag loolu day feeñal Serigne Touba mhm. te dama rek ñun ñii dañu dem ba jëmmi jamono mhm. xaw ma ñu fekke mais suñuy sët ñoom dañ ko fekke ji lu ñu mën waxati Muridiya rek la ñuy wax kenn dootu waxati benn lu dul Serigne Touba bon nag ñu ngi sant bu baax a baax di leen ziar ah di leen ñaanal di ñaan suñu borom gën na jàppale ci bis bi. nekk suñu jëriñ jëriñ Cheikh Ndiaye kenn du ko présenté ndax képp fépp fu bokk taal bi nekk ci àdduna bi ràññee nga turam waaye rawatina fii ci Hamidou Ratin fii ñu nekk ci Brésil ci liggéeyam bu rafet boo xam te ni mi ngi koy def ci daara Serigne Touba yi waaye rawatina ci mbokk taal bi mu doon ko xam te ko am pësteelu ci liggéey Serigne Touba bi ñëpp ràññee ko ci kon jëriñ Cheikh ñu leen lay nuyu di la ziar di wax nga nuyu mbokk téléspectateurs yi seetaan kuréelu Seexul Xadim TV ak Touba Argentine TV. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah waa Touba Argentine TV ak waa kuréel Cheikh Khadim ñoo ngi leen nuyu di leen siyaar di am mbégte mu mu mu mu màgg màgg a màgg tey ci bis bi nga xam ne Serigne Touba am na ndam tey ndax fi ñu nekk tey mooy Rio de Janeiro Rio am taarix ci Brésil ndax moo doonoon première capitale Brésil bi fi portugais yi ñëwee ginnaaw bi lañ ko doxal Brasilia waaye Rio it siiw ci am po mbedd mi ngi gis tey. yàgg nañ fee def manifestation waaye doo doo doo doonul woon bii mën nañ ne bii manifestation moo fi njëkk mhm. ñen ñoo ko fi def muy taalibe Sëriñ Tuubaa mhm. tudd baatub yàlla bi saabal suñ borom sant Sëriñ Tuubaa ci ci tawfeex gum ñu tawfeexal ba ñu bokk ci moom ba mën a def bis bu mel nii mhm. bisub cant la bisub mbégte la bisub ñaan si soxla bisub faju aajo la ndax nii fi mbooloo mi teewee Brésil gépp daje tey Rio ne fii nga xam ne nii fii la géej gi nga xam ne moo ëpp ci ci ci àdduna bi gën fi rafet ne ñun xoolu ñooyu yëpp ñu ñëw ci mbedd bi di màggal sëñ Tuubaa loolu bu ko sëñ Tuubaa fayee xajul ci waaye réew mi rek man bépp mën nañ ci mën nañ ci taw feex jërëjëf ñu ngi bala ñaa bàyyi sa njàngat ci lool rek euh, comme ni nga xamante ne gis nañ yéen ñi xam yéen a jiitu ci dëkk bi boo leen xoolee fi mbir mi tolloon liggéey bi ak fi mu egsi léegi lan nga ci jàngat waaw avancement bu mag da cee am ndax booy xool journée xasida bi réew Grand Sud lañ ko initié woon def fa ñetti at ren ñu ne dañ koy génne ñu njëkkee ko Rio waaye déwén ñu jëm São Paulo loolu day war ne avancement am na mbiri Sëñ Tuubaa moom kanam rek la jëm ñun doomu aadama yi buñ ko deful jinne ak malaaka yi ñëw def ko kon ndokk ba ñu Sëñ Tuubaa boolee ñi nga xam ne ñoo koy tabax loolu taw feex Sëñ Tuubaa du suñu njàmbar yéen waa Brésil São Paulo seen jaaxle ci wàllum dugal xaalis jeex na jàpp ni na ngir ngeen dugal xaalis ci war yi wala ngeen def virement maanaam bu ngeen amee compte banque ca Sénégal ñu dugal ko ci wala ka ngeen di yónnee xaalis am compte banque wala loxo ak loxo bu dee dakaar la day dem nu jox ko bu day Touba noonu la ci gën a neex nag ci ay njëg yu sakkan la te xéwale lool yëmunu ci loolu yéen ñi soxla crédit maanaam woote Sénégal am na application bu ñu lay wàcceel bu tudd Ayo nga woote Sénégal wax ba mar jàpp ni ne it ngir ngeen maye crédit Sénégal moo xam orange la wala Tigo wala it Expresso wala ngeen def Tigo Cash wala it orange money ak Omar Ndaw mi ngi brasse ci Gloria bi waleen ko ci numéro téléphone yi ngeen gis muy affiché ci écran bi. ndaw baax ñu ngi dend ak Serigne Sidi Moukhtar Mbacke mu jóge Argentine di sunu kilifa nekk fi Serigne Sidi fi ñu ne sunu jotaay bi moo fi Serigne Touba ndax ñun képp koo xamante nekk nañ fa leeru Serigne Touba ne rek. moom lañ def muy Serigne Touba kon seen Sidi Mokhtar ñu bàyyi la nga nuyoo mbokki téléspectateurs yi. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa Latino America mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ah, di leen saare di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mountakha Bassir mi nga xam ne moo toog a jotaayu Cheikhul Khadim damar ko sëkk di ñaan yàlla mu yàgg fi te ànd ak wér ba li mu yéene liggéeyal si Amadou Bamba Xaadimu Rasuul lépp mu matale ko ci sagoom te ñu ànd koog moom ak mbokki taalibe yëpp di nuyu mbokki jullit yëpp nag ci teew gi teew fii ndax euh, li moom teewal Serigne Touba la te ñun amuñu ku dul Serigne Touba bëgguñu ku dul moom yaakaaru lu dul moom lu mu ëmbati loolu soxlawuñ ko kon nag teew ci bés bu mel nii daa doon loo xam ne moom daa am solo lool waaw ñu ñu ngi koy rafetlu daal bu wér di ak ci am mbégte nag baax dañu am suñu borom tabaraka wa ci wàllu Serigne Touba sëñ bi bala ñu laa bàyyi ñu bëggoon nga wax sa yëg-yëg ci bis bu toll nii ndax ku ne xam na ni fii ñu nekk ak mbedd yu ñu jaar avenue rëy yi nga seen ba ko tubaab bi sàkk wax dëgg yàlla tudd baat laa ilaaha illallaa taxuloon waaye nag ba ko tubaab bi sàkk jàng fi xasir seewul xadim taxuloon ñu dem ba tey jii eh, ñu teewal fi di fi yëkkati bis boo xam sa lan koy defal mu seewul xadim lan mooy sa yëg-yëg ci loolu waa mbokk bi loolu moom ndax na xol bu sedd guy rek ak mbégte moo xam ne am na tàmbali waaye amul fu ndax eh, keneen sëñ Tuubaa moom mooy li nga xam ne moo nu war moo nu war comme ni ñu ko waxee sànq rek amuñu lu sëñ Tuubaa bis bi nag doon bisub xasiday sëriñ Tuubaa te sëriñ bi wax ni xasidat yi faaxat xasaay nit ki wala di ko gën a yaatal ndax bu yaatoo su nit ñi day gën a yaatu bu bu ko buñ ko fonkee tamit saa su ne dañuy gën yokk rek ndax sëriñ bi lépp ko jël doxee ko ci yi daanaka daanaka daanaka daal lool daal moom mooy li nga xam ne moo ñu fi indi yëkkati ñu am ñu am ci mbégte loolu nag am ci fierté doon doon doon taal yëpp sëñ Tuubaa am fierté doon taal di la ziar di la jox kàddu yi nga nuyoo mbokk yi nga xamante ni ñooy seetaan Touba Argentine TV ak kuréel Seexul Xadim TV ci bis bu rëy bi nga xamante ni moom na amee muy journée xasida 2018 muy am fii ci Rio de Janeiro nga bokk ci kilifa yi nga xamante ni ñoo jiite fii daara bi nekk ci dëkk bi waaleykum salaam wa rahmatullahi taala barakatuhu asalaamaaleykum mbokki taalibe yi mbokki waa Xaadim Rasuul ci àdduna bépp rawatina ji jii ñi ñu bokkandool teewandool fii ci Rio de Janeiro ñuy rafetlu lool seen télévision bi jógee ba Argentine loolu lépp di mercado suul bi ah ñun ñi nga xam ne ñooy wax ak yéen pour que mën a gën a yaata suñu xamee ci ñu ñu bëgg a xam ñu ni ñu bëgg leen a xam sëriñ Touba gi wax ñu bokk ci daayira bi suñu wolëre euh, suñu doomu ndey di wax Serigne Chérif jiite ko de suñu mbokk bopp nag ah, ñu nekk magi taalibe yi nekk ci dëkk bi macha allah. daayira bi jox ñu suñu wàcc waaye dara manqué wu ci waaye loolu lépp dañ koo bokkandoo di àndal liggéey Serigne Touba ndax Serigne Touba euh, ñun ñëpp xam nañu li nga xam ne moom lañu ñu defal ndax suñu amee lii ci réew yu nasaraan yi rawana ci Mercosur mooy irham jàmm yàlla waraa yéen ñëpp jàmm kon fu ñu dem rek yóbbaale nañu jàmm te jàmm képp ku indi rek ñu dalal la foo dem rek ñu jox la sa sa wàccuwaay ak sa gëdd kon loola macha allah mooy li waral tey jii ñu def ko journée xasaayid fii ci Rio de Janeiro ah ngir wone Serigne Touba am na l'islam jàmm rek la ñi nga xamee ne Serigne Touba am na ci dégg ci déggin wu muy jàmm ji woote lu du jàmm ndax ba koy noonam sonalee ba xam ne mënatuñu ci moom dara dañuy jégal naa ñëpp kuy jégale nag jàmm rek la bëgg kon ñun it fu ñu nekk rek nañ leen góor góorlu sax ci njàngalem Serigne Touba nga xam ne mooy jàmm liggéey jaamu yàlla. waaw te nekk suñu jàmm ndax jàmm rek ci la lépp xal ñun leen gërëmaat tamit dina sant bu baax a baax nag ndax mën nañoo wax ci benn anam muy ne mën maintenant président du ñàkk dina ci jot li ndax fii tey jii ko xool mbooloo mi mu toll. mbooloo la moo xam ne Mercosur bépp la rawatina tey jii suñu nee Rio di ancien capital Brésil ci colonisateur bi avant ñu koy délocaliser di ko yóbbu Saint Brasilia bokk na ci capital culturel lu dëkk bi nag kon suñ ñëwee am fi journée xasaayid muy journée culturelle Serigne Touba loolu sax def nañ ko fi ñu ko war a defee waaye ñu ngi ko séqal muy euh, Brésil gépp parce que Brésil ay état lañu dégg naa ci seen interview sax bu yàggut mais y' a plus que 32 états ou plus naka noonu ñu ñëpp teew nañu ñi ci gën a ràññeef nag parce que tamit état yi ak ñi ëppi mbooloo ah, demee na ko São Paulo Porto Alegre parce que am na yeneen état ñoo ñëpp ñëw nañu Belo Horizonte Recife ak man mii di wax ak yow Victoria laa xëy ni Espírito Santo pour ñëw teew si journée xasaayid bi. day jaral na ma ko waaw ndax sama liggéey laa ko ndax Serigne Touba moo ñaamal lépp kon nag loolu nag du di ko sant Serigne Touba eh, ñu ngi leen di gërëm ñëpp nag de passage nag waaw waaye nag lu lépp ngërëm Serigne Touba lañ ciy wut yàlla nañ ci Serigne Touba defal ngeen ci barke nii ci marche bi nga xamante bokk taal bi ñu ngi koy amal pour jëm fël ci salle bi ñu defee journée xasida bi ñu ngi nii dend ak euh, sunu kilifa sunu xarit sunu Serigne Serigne Dame Diène euh, sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa kàddu nga wax sa yéeg ci journée xasida 2018 fii ñu amel fi ci Rio de Janeiro. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi leen di siyaar bu baax a baax yéen waa télé bi yéen ñaanal Sëñ Tuubaa defal leen tawfeex ak saxaadu bari ni li ngeen def li ñu am solo la di ñaan Sëñ Tuubaa nag lii ñu def mu fayal ñu ko boppam ndax lii lu jafe ci réew moo xam ne ay nasaraan la te ñoom xam nga ne gëmuñu yàlla gëmuñu lenn léegi xam ne dañoo gëm yàlla gëm yonent bi dikk ñu bàyyi ñu xam ngeen liggéey bi Sëñ Tuubaa tey Sëñ Tuubaa tey di déen ko gën a sigil ndax buñ tegoo ci siraatal mustaqiim def li ñu war a def lépp rek Sëñ Tuubaa fa mu nekk dina fa mën a nekk jàmm ak salaam te tey am naa yaakaar ne Sëñ Tuubaa tamit amul kenn kuy taxaw sa kaw ak suuf nga defal ko wenn fépp ci àdduna te dina ko fay amul kon nag nanu xam ne lii ñuy def Sëñ Tuubaa rek a tax nañ ci ànd ak pas-pas ànd ci yéene xam suñu bopp gëm suñu bopp ci fànn bu ne ñu booloon a ànd nekk benn ngir jëmmi sëñ Tuubaa te kenn ku ne nekk loo yéene sa bopp nga yéene ko ko sa morom ñëpp ñëpp ñëw nañu Baay Faal yeeg du ñaanal ñëpp rek yàlla defal leen tawfeex ak saxaaru dara yéen tamit seen liggéey bi yàlla susural leen ci ngeen am ci kattan ni ngeen ko bëggee yàlla defal leen nañ ko noonu ndax sonn sonn sonn bi sonn bi gis a baax di ñaan nag ci kattan mu Serigne Salim Mbacke Serigne Khadim Fall Baye Fall ñu gën ko ci loolu ñu ko am Pastef Serigne Khadim ñu ngi leen nuyu di la ziar bëggoon nga sànni sa kàddu li nga yëg ci journée xasida bii ñu amal tey fii ci Rio de Janeiro. Euh, jërëjëf bu baax noo lay siyaarewaat bu baax di leen masawu coono ci coono yi nga xam ne toggoo ngeen ko ba ñëw fii waaye nag lépp coonoy bànneex la di coonoy tawfeex ndax boo xoolee ki nga xam ne moo liggéey liggéey bi ba mu ñoŋ mu teg ko suñ loxo coono ba mu toggoo woon ñun toggoo wuñu asaka ji ndax bi mu nekkee gànnaar mag ñi dañ ko fa daan fekk ba taxoon mu ne leen lil Moustapha naway euh, euh, innal lasina ila sarsaara qad xasiru siyaarati faraxu yi ne aw saara ñoom la leen taxoon a jóg mooy ngërëmal yàlla ah ñoom nag euh, arxuraan dañuy wax saabixoona saabixoona ulaayka muxarraboona ñoo ñuy jiitu sëñ Tuubaa nag liggéeyal ko ak wane ko dafa war ci àdduna fépp dafay mel ni fii moo fi desoon ci àddina ndax Rio de Janeiro moom kenn dootu ko présenté ci àdduna boo ñëwee Brésil moom bari na ko xam Brésil Rio de la xam Euh, yàlla taw feexal nu tey ji nag ñu jël mbett yi nga xam ne moo gën a mag ci réew mi di fi dox di fi sant yàlla di fi yëkkati kalamatu la ilaha illallah waaye di fi yëkkati xasida yi sëñ Tuubaa yi nga xam ne sëriñ Tuubaa moo ni kiramatu xattu yat yi mhm. nee na ay kiramaam yëpp mi ngi ci xasida yi mhm. wax ni xasida ci faaxat xasaay dal kiram mhm. wala yi taquudu abadan xayral maram bis bi nag xasida yi tax ñoo jóg te sëñ Tuubaa moom li ko tax a jóg moo yonente bi alayhi salaatu wasalaam lil Mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul xarra wa inni ahmadu kon kooku la layaloon na boppam bu yàgg moom daal li ko tax a jóg mooy yeesal si sunna si rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag ñun lanañ ci war la sant mooy sellal ko ak wane ko te lii moom boo xoolee ñi fi nekk mag ñi fa am juróom fukki at bëriwul euh, la sëñ Tuubaa waxoon ci euh, tasaru si xaar ñi mhm. ay xos sibaanu ee yéen ndaw ñi dafa mel ni dañoo nekk ci aw yoon ñu ndaw ñi mhm. réer jaxasoo xamuñu fuñ jëm sëñ bi ayooyu noonu ne ndaw ñi ñëpp taxaw mu ne bu leen soxla woo lu dul ak njub ak jàng ak loolu nag defe naa bisub tey ji wane na ko ndax Brésil dëkk la boo xam ne tubaab yi seen jëm bopp bu ñu bëggee fo Brésil lañ taamu ngir fosi fi ñun nag buñ jaamu yàlla gi ñu fi def mooy yëkkati kalimatu laa ilaha illallah rafet naa njort ne tubaab yii ci mbedd mi sax eh, te li ñuy def neex leen boo léegi yemal xiyam sunu borom dana leen yéen ndax sama njaboot ga ba ñu taxaw di yëkkati kalimatu laa ilaha illallah fekke woon ko ñu ne waaw neexoon na leen ñu ne waaw loolu njëgalu yàlla xaj na ci ndax yërmande yàlla dafa yaatu lool noo ngi ñaan ci barkeb sëñ Tuubaa bis bii li nga ko liggéeyal sëñ Touba yàlla na ko sëriñ bi nangu te ñun ñi koy liggéey tam yàlla nañu sëñ bi rek tax a jóg saa yi ren baati nan ndax sëñ Touba moom liggéeyal ko doo ci gis sa bopp doo ci wane sa bopp doo ci doon dara ndax sëñ bi rek a doon lépp ba muy mett moom la woon ba muy nekk Gabon nekk na fa ñaari weer ñaari at yoo xam ne weeru koor wu ñëw sëriñ bi dafa mel ni sax am na fa koor goo xam ne bu toog jotee day rocc ci xobi garab yi di dog kooram te tey ci ñun ñi ñenn ñi lañ jël ñenn ñi jël ay bus yu sañse ba rafet ñëw toog ngir di yëkkati kalimatu laa ilaha illallah waaye di sant yàlla sant yàlla ci lan ci boole gim ñu boole ak Cheikh Ahmadou Bamba loolu nag taw feex la joo xam ne bépp képp koo xam ne am murit nga képp koo xam ne ab jullit nga ndax moom lil Moustapha nawaytu la wax kon kooku moom li ko li ko yitaloon mooy yeesal sunna si rasulullahi sallallahu alayhi bi nga xam ne yonente bi ba muy dem dañu woon am na ku ñëw sama ginnaaw bu ñëwee na ko topp nu mu tudd ne Ahmadou Ahmadou kon nag sëñ Tuubaa mi moom mooy ahmadu moomee yonent bi da sallallahu alayhi wasallam doon wax ñun li ñu war suñu digganteek moom mooy di ko gërëm te di ko sant te di ko jaajëfal te di ko ñaanal ndax ñaan moom ñëpp ko yittewoo tey loolu daal war nañu si ñoo ngi leen sant yéen itam ci coono yi di leen sant taxawaay yi di sant yàlla baax baax a baax lii nag ñaanu Cheikh Abdou laxat la woon dafa am ki koo xam ne sëñ Abdou Lahat dafa am nu mu demee woon mu ne bis ni tey bu fi rajo bi ñëwati lépp loo xam ne ñu ngi koy waxati wax sëñ bu xaadar ni ko murid bi ci tubaa dañ ko wax ci jumaa ji murid bi ci tubaa wax ko ba ca njaareem ba ca njaareem wax ko ba ca Thiès ba ca Thiès wax ko ba ca gan ba ca Gambie ba ca Gambie wax ko ba ca Mali ba mu wër murid yëpp ñu def bëggu sëñ Touba tey jii nag ñoo fii ci Brésil di wax ak waa Touba loolu nag ñaanu sëñ Touba la ñoo ci sant yàlla bu baax waaleykum salaam